Thank you. asalaamaaleykum mbokku téléspectateur ou informés, réew alaikum beaucoup internautes Grand Théâtre TV tey nag ñu amaat mbégte contentement di janook yéen euh, tey nag Yamoko, ko li nga xamante ni moo nekk quatre anniversaire euh, Abdoulaye Wade ginaaw bi nga xamante ni le 29 mai 1926 fele ci diwanu Kebemer nek ci région bu Louga tay nak ñu toog ak nga xamante ni kenn la ci Abdoulaye Wade mu neena tamit kenn la ci li nga xamanteni mom moy PDS nek Amadou Diarra nek maire Pikine Nord euh, tay nag ñu fas yéene toog ak mom waxtaan ak mom mu indil ñu ay cadeau yu xamanteni euh, ay cadeau yu joyeux anniversaire lañ koy tipé jëm la ci ki nga xamanteni mo fi nekkon njitu réew mi di Abdoulaye Wade. waaw ma ngi nuyu téléspectateur ou info réew mi yépp di leen ziar bu baaxa baax di leen bolé ci bëss bi bëss bu tedd bi euh, muy anniversaire Son Excellence, le professeur Maître Abdoulaye Wade président Abdoulaye Wade qualité yi ma ci boole yëpp benn du hasard excellence c'est parce qu'il est excellent Inch'Allah. Je me professeur parce que est la Je suis maître parce qu'il fut un avocat il est avocat. Ce ma président il est ancien président et il le demeure. li man ci politique moo ko def ci man du ma ne moom rek ci def ci man mais mon, mon ma jël formé ma ba ma Amadou acteur politique ci Sénégal bamay may maire ci partem l'a ko jaare ba may adjoint maire ci partem l'a ko jaare ba may député ci partem l'a ko jaare ba chef de cabinet du ministre de l'éducation nationale ci dial ci partem l'a laa ko laa ko jaare kon man awma fayam mais Sénégal amul fayam Afrique amul payu Abdoulaye Wade président Abdoulaye Wade aduna bi le monde entier amuñu amuñu fayam parce que est parti unique Le job. mënoon a dugg ci partie unique am teraangaam toog sans mener un combat mais man j'ai été témoin muy mener un combat ba Zaïre plus de trois cents partis d'opposition mu taxaw def médiation boole leen ñu am ay conclusions consensuelles yëg ngeen yëg ngeen fii li mu def Madagascar yëg ngeen li mu def ñaari Guinée yi di leen woo ay président naan leen defee leen nii Gambie moom waxaale ma ko à bi ay schéma am ay jangalem ay de gestion politique modèle le Sénégal a un décollage par rapport aux infrastructures qui forcent aujourd'hui le respect de la dimension économique du Sénégal président Abdoulaye tay ce niveau de connectivité bi ba ay niveau di plateforme internet bi ñukoy suivre parce que le président Ablawad nous choisir les autoroutes de l'information et de la communication vers les années 2000 pour que le Sénégal soit il y a des pays au monde il y a 3 ans 4 ans qui ont un haut débit d'internet en termes de communication le président quand il est venu au Sénégal a fait fi ce ce bouton télécommande télé RTS ngay voilà TV5 ñaar et les gens ne se rappellent pas de ça Ils yi doog am 20 ans Ils ils dañoo ñëw rek fekk. Moi, cette ouverture médiatique extraordinaire ce bouton télécommande 0 zéro 11, 12, 13, 14, président Ablaïwad a cette ouverture ce qu'il a apporté dans le monde en Afrique sur la dignité et l'indépendance d'un président africain je me rappelle ses propos lorsqu'il disait que euh, je respecte Jacques Chirac en tant que président d'un pays souverain il doit me respecter en tant que le président d'un pays souverain comme le Sénégal cet alter ego là incarné sans complexe avec dignité Madame le président Obama George Bush euh, Jacques Chirac président bu en terme de en terme d'âge en termes d'expérience en termes d'endurance dans la vie Abdoulaye de les gens le comparent à Nelson Mandela, mais je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que Nelson Mandela a fait en Afrique du Sud Une case de tout petit Nelson Mandela dans son premier mandat et unique mandat de Il a fait la prison 26 ans. Wad s'est opposé 26 ans. Toutes les brimades, il les a subies. Arrestation, séparation avec sa famille, tractation. D'où n'est que président Ablawad. il s'est opposé démocratiquement il, a déclaré Je ne veux pas accéder au pouvoir en marchant sur des cadavres. Nelson Mandela, dans sa lutte, combien de morts Combien de millions de Sud-Africains sont morts Quelle conclusion et quel consensus, voire même deal, il a fait en Afrique du Sud pour devenir président, pour accepter des élections, Yumi Andak, les, les, les Blancs sud-africains, Leclerc vice président quel a été ce deal là conclu en prison pour pour qu'il sorte Si président pendant ces cinq ans il a il a vendu son nom à travers le monde avec des signatures d'autographes des voyages mais qu'est-ce qu'il a fait pour l'Afrique du Sud ce que Zuma a fait il ne l'a pas fait en Afrique du Sud regarde Wad, qu'est-ce qu'il a fait au Sénégal il a tout fait au Sénégal à part les fi tubaab c'est indi fait Abdou Diouf Bakofi, Wad mo développé le Sénégal en termes de d'infrastructure Tay buñu am péage et autoroute yu yaatu si bu ko fi Wade deful won jamono yu Macky Sall ñëw fekk ñu am ay benn tali pour dem Dakar Wad Sénégal mënu ko fay Donc, anniversaire am ñëpp a war bougie donc je voudrais préciser su may wax ci moom damay passionné je suis wadiste et même si maître ne voulait pas que je devienne wadiste mënu ci dara

li Wade def ci Macky na ci temps. aduna Sénégal am jam, milliards bu su Sénégal du content. ay milliards di milliards pour milliards yi milliards bi suñ ko indi di def ci Sénégal Sénégal du ndax ak Sénégal beaucoup kàddu ak Assa Samb yi wax lu wóor waxi baatin la wax Sénégal dañoo amel njukkal wàdd te dañoo war a dab bànnee xam di ko ñaanal mu yàgg fi te war donc président dundal yow le fait nga nekk fi rek yàlla daf ñuy rusee yenn yi ndax ci mag ñi nga bokk président Wade ñoo ngi lay gërëm ba buñ ko jaawale nag PDS PDS ab partile bi nga xam te ne Wade talatu ko Il ko sax moy problèmes problème secteur section bureau élection candidat mandat intéressé tout ko mom koy utiliser jamono ji mu utiliser mu utiliser parce que xalé yi ñoko soxla ña ñoo soxla ci mom ngir doxal seen yëf pas dara PDS utiliser mais moomuñu ko man nag ñooñu di ko utiliser ñoo ma buddi sànni ma ndax amoon naa fitu ne PDS bu Wade warul ñàkk candidat ci élection PDS bu Abdoulaye Wade warul ñàkk élection war a jàmmaarloog Macky Sall mi daan Wade daa war a am élection yoo ca topp ab candidat mu bokk ci partem mbaa mu bañ a bokk ci partem man ma tànn candidat bu bokk ci partem di avocat am di frère di président groupe parlementaire ñu néma lolu crime la daal di may simple sanni ma am ful la and ba lolu jeex wala leen amona deug ndax candidat bi PDS tànnoon mujul nek candidat kon ma yay tay PDS ñama ma génnee nit muy ñom Omar Sar ñom Amadou Sall parce que mayuma leen jàmm ci seen gis-gis seen taxaway woluma ma ko won ma lok ñom mais ñu gën ma jégué wad utiliser wad génnee ma ñom tay tay yalla fajj na leen parce que ñom nañ motax wad, tay lay gëna mëna wax may wax nak ñi acteur politique yëpp fi ma tok nek sama kenn man kese ku yaakaar wad wad amul dom ba nga laal ko di nga xam cest ku yaakaar na wad mën na ñu nekk ca fee rek ñooy ñooy ay soldat am yaa ngi yaa ngi trompé wu à commencer par le président Macky Sall ba ci ñeneen ñi nañ ko may jàmm di ko ñaanal di dab bànnee leneen lu ko nit def waa PDS bu ñu jógee ñoo xam bu ñu moo xam man maay jaay sama bakkan. ginnaaw bi nga xamante ni wutu na réew mi lu tolloo ko sept fois daal di créer parti PDS bi 1974 euh, le premier mai bi mu ñàkk premier avril mu ñàkk li nga xamante ni moom mooy élection présidentielle yi 2012 euh, jëlee woon ko ci ki nga xamante ni mooy Abdou Diouf Macky Sall ñëw wutu ko fii te ki nga xamante ni mooy Macky Sall moo toogoon wax ne ki nga xamante ni moo Abdoulaye Wade defal na ko lu xamante ni waajuram bu góoram sax defaru ko ana tey ban gis-gis nga am ci mbir moomu. waaw xam nga loolu man wax naa mag Sall leen rek la mënoon def mu neex ma heureusement sëñ xalifa général des Mourides euh, dox na ci wax na ci ci ba ñuy inauguré Massalikul Jinaan sëñ Mountakha jubóo leen ne leen woote jàmm parce que moom li muy incarné mooy la paix jàmm sëñ Mountakha jamonoy Massalikul Jinaan taalibe Mouride dama leen dégg ñuy zikkër yaa salaam mooy jàmm ma xam ne dafay bokk ci credo am mu commencé la plus haute autorité politique jubóole ko ak wàdd jubóole ko ak Madické Niang ma xam ne dégg na fi ma wax sànq ne suñu buggee Sénégal am jàmm wàdd daa war a bég ndax Macky dafa war a continuer ci dynamique boobu Wade du ñëwati di nekk xëccoog moom xëy na ay doomam comme Karim ak ñeneen mais na bégal wàdd mu gën bàyyi fi wàdd di bégal Abdou Diouf moo gën bàyyi fi wàdd di bégal Tanor Dieng yal na ko yàlla yërëm moo gën bàyyi fi wàdd di bégal Moustapha Niass moo gën bégal wàdd di fi bàyyi di bàyyi fi wàdd yàlla na ko yàlla yërëm wadd du ku ñuy mettital su ñu amoon jot dama lay limal képp ku toog def lu wàdd naqari ma bind turam ñu foto ko def ko ci Facebook def ko ci WhatsApp nga xool mu jëm lu rafet ndax wàdd xol bi rafet xol xolu giit la yor générosité man maa fekkee wàdd ca ñu ko wër mag seet si ko di dem mu ne ndax may ngeen ko paas ñu ne waaw mu ne ñaata mu ne deux millions <clears throat> dafa nekk kooku bëgguma tudd turam bu doon sa baay moom ma seet si doo ko may deux millions jox ko fukk xoolal xoolal loolu wàdd bu ak mag ancien militant bu mu gisul ba dox ba dajeeg ak mom limi wax ak yow tok na ci bir palais bi bureau man mom Ablaye Fay, muna ma lima metti ci sama nguur moy ben mag bu sonnon ci man te gisatuma ko te muy dund wala njabotam nek fi te defuma len teranga man loloy lima metti motax ma woo leen ñaan ñi pour ngeen doxal ma ci man ak Abdoulaye fay ak ak Abdou Sané bu bu bu Ziguinchor ñu ñett mu teg ñu ci bureau sant ñu liggéey ni sama ancien compagnon yi balaa may bëgg man mooy ci li mu yor nii ñu bañ a fàtte seen i njaboot day mel ni damay wax xam nga xoolal dënd boobu bokkul ak nag ñi ko doon dóor ba lu fetal mu jox leen teraanga dem si yàlla si Mbaye Jacques Diop entre tour ak deuxième tour cortège Ablaye ay balu fetal lañ ci dóor ba romb këram. dafa jël président conseil économique et social dénk ko entre deux tours Wade di xëccoog Abdou Diouf dafa def nem si yàlla si moom it dafa def déclaration ne je vote Abdou Diouf parce que digg na premier ministre pour ñu ànd defar Sénégal de gagner. mais Djibo Ka daa ministre ba ab ba génn àdduna ci nguur ba Ablaye Wade génn euh, ba Ablaye Wade ci nguur gi maanaam indil professeur Youssou Ndiaye mi defoon déclaration ba en 93 né, Abdou Diouf a gagné les élections dès le premier tour, reprenant ainsi le slogan du Parti Socialiste, le slogan de campagne, qu'Abdou Diouf va gagner dès le premier tour, ce qui n'est pas un acte de justice, ce n'est pas un jugement de justice euh, d'utiliser le terme dès le premier tour. Il faudrait dire qu'Abdou Diouf a gagné au premier tour. Mais le fait que le juge Youssou Ndiaye déclara que Diouf a gagné l'élection dès le premier tour, day reprendre waa parti socialiste wane ne ndigal lañ ko jox élection yu contesté Babacar Seye dee ci et cetera et cetera Wade Youssou boobu ministre d'état la ko def du nit xolu xolu jamaa la yor góor googu te looloo gën a rëy ci gàllaaj am xol bu rafet ku la def lu ñaaw doo ko xool soo ko jekkoo baal ko xeer yi lay sànni yow teraanga nga koy sànni kooku yàlla da lay may gudd fan mais aussi dalay may leneen leneen loolu mooy loo bëgg mu def ko déggoo ma de luy nekk sa xol yàlla gërëm ko ndax dem ci wàdd mu lay ñaanal dara gënu koo rëy nit kooku waxuma la sax âge am waxuma la lu mu daj ci politique mais li ci biiram li ci biir xolam li ci biir gëndam li ci biiram li ci xelam sell na sell bu toll nii su la ñaanalee yàlla def ko man xam naa ci dara li ñuy wax naan la mu saf kaka ma ci ko xam man ba ma nekk maire les maires en en quatre vingt en deux mille neuf deux mille quatorze ma nekkaat candidat di fa ñëw ba ñu dem bay tàqal ko mën ko président fii laay mun a tàllal sa loxo ma ñaanal ci kaw otoom Pikine yëpp di seetaan ci kaw tali mag mu ñaanal ma ba may def nii. mu japp sama jébbi bind ci xamul lu ci xati lolou bokk na waxuma loolu rek la nag loolu bokk na ci lu important lu tax nit ñi joxaat ba bop ba falat ma donc so dee gor war nga seede li nit ki def ci yow ba tax nga nek fi nga nek tey xeyna bu lolou amul won tay fàtte nañ ma ba info réew mi du ñew ci man ba tax Wade président Abdoulaye wad je ne je n'accepterai jamais tant que maa ngi vivre ma gis ñu koy teg lu metti te ma mun koo faj te ma ko dama koy namm ba su dul woon sew sewu politique bés bu nekk balaa may xëy sama biro damay dem nuyu ji ko mais sew sewu politique boo ko defoon léegi ñu ne waaye moom moo bëgg bokk ah, bëgg PDS wala dafa bëgg dellu wala dafa bëgg xam nga te man mosuma génn dafa nekkoon a ma dàq ma mere leen merewu wàdd Wade mu ma Viviane merewu Karim ñi ma mere woon ñi wàdd dinkun Karim nekk Dubaï Viviane nekk Versailles wàdd jox leen parti bi Omar Sarr ñoom ñoom ñoom Amadou sar ñoom laa ñoom it ñu utiliser pouvoir bi leen wàdd jox dàq ki ñu ki ñu bëgg a ma am ngor toog fa ma toog continuer sama combat mais sama biir xol xotti ko fi ak pas-pas bi ma am ci nit mënu ko sax mënu ko

Abdou Diouf min jóge ci wad remplacer ko bañu paré francophonie lañ koy liggéeyloo xam nga luy la francophonie moy ñongal culture ak langue française manam 20 ans ñu jox ko ab réew nga nek sen gouverneur nek président mais nek gouverneur président France mu lay wax ngay def bu mu bëggee dévaluer Sénégal fi la ñëw président Sénégal ministre de l'économie et des finances France la yoni dévaluer ko fi ci Sénégal suñu capital façon yooyu lañ doon dund avec Wade c'est fini vous rappelez mu jàkkaarloog l'ambassadrice l'ambassadrice des États-Unis

du ndigalu xalif général moo ñu fal ko en 2000 riir a jóg soxla changement Khalif yu bëri ci jamono yooyu Abdou Diouf lañu joxe Khalif xalif yu bëri du ma lim sëriñ yu bëri homme religieux yu bëri dañoo joxoñ askan bi wëlbati ko falwaat changement sopi. moo tax ni mu amee pouvoir c'est le peuple qui le lui a donné moo il n'était redevable à personne à aucun chef religieux aucun état étranger moo il a géré avec dignité maintenant bu fekkee ne yow ay lobby ñola jappalé do mëna doxalé mun motax doxalee noonu ñu ñàkk ku fort Sénégal mënatu ko am pour ñu am ko il faut que mu nekk doomam mu nekk doom au temps pas njabotam bu mu jur kese mais au sens philosophique au sens au sens doctrinal au sens idéologique manam un Ablaye wad produit ci gis-gis ci xam-xam ci dayuwaay ak jafé peut-être dans 40 ans dans 50 ans la ñu am là Mais ce mais ñi au Sénégal du politique gisuma ci ab daggati Ablaye Wade hmm? ko ngay def man j'essaie d'être un Ablawad, mais pas au niveau national mais au niveau communal j'essaie d'imprimer sur mes démarches les actions d'Ablawad. Je suis di jéggale di jëllale di baax un far de baax di nuru nuru lu wàdd di def ay définam ba sama bureau sama bureau damay tek ay hommes religieux comme mel ni Serigne salim Mbacké comme ni Serigne Babacar Sy di mais damay tek ci ndey gi ab Abdoulaye wad dossier bu difficile bu ñew may top ne len yeen ñetti ñi su doon yeen no len di defee le politique wad le religieux Serigne Babacar Sy l'autre religieux Serigne salim xol no len di defee su ma xelalee ba pare ma teg Cheikh Ibra jëf Baye Fall ci loolu générosité boobu ab lay Wade bi ci la ñuy ndi suñu laaj ndaxte gis na bi jamono tolloon ki nga xamante ni moom mooy Léopold Sédar Senghor bi mu amee problème mu euh, ci këram gi nga xamante ni moom la yoroon kii di Ablaye Wade da jënd euh, def ko li nga xamante ni moom mooy patrimoine historique wëlbatiku def ko musée euh, national askan wi yëpp nekk ca di ko visiter tey ñu xooloon en 2018 ñu nangu li nga xamante ni moom mooy këram jël doomam exilé en 2017 ndax ab lay Wade mérité na lu mel noonu. mais wax naa ko moom mooy fóot ama Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum sama sëriñ soosu ama sax wax naa ne Abdoulaye Wade mooy sama maître à penser politique mais Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum mooy sama maître à penser spirituel man mi hmm? à travers formation mu cherche dina wal mu cherche daat ci doomam jooju sëñ Mansour sëñ Moustapha Sy mais suñu Cheikh da doon wax lu am solo ci sangat bi ñu war a sangat Sénégal tey dama ciy dolli man bokk na ci farata Sénégal ñu jéggalu wàdd jéggalu national jéggalu national waxuma comme ni ñuy wax ay ndëpp yooyu de maanaam Sénégal yëpp jéggalu wàdd ba wàdd bég c'est la condition

fàttaliku ne yaa ngi ak xam nga ne sa julli baaxul Macky sàll lu mu def def def ci réew mi gestu ne wàdd bëggul dañ ko koy delloo du baax donc Wade mérite li mu mérite mooy ñu teg ko di ko suyeer di ko ziyaare di ko laaj ay conseil mais doo ko naqaral wuti yeneen conseils yi ku ko gën a néew ci àdduna bëgg doxal mu dox yàlla du ci ànd sëriñ su baax yi duñ ci ànd xel bu nangu daal du ko du ko nangu donc Wade waxuma la këram waxuma la këram mais dañu war a wuut institut Abdoulaye Wade wuut Sénégal wuut ko Afrique du Sud bu ñuy tagg Nelson Mandela <coughs> wala nga dem beneen dëkk franc yi naan la Nelson Mandela mais c'est parce que joxuñu Wade gëddëm Wade c'est c'est dix fois dix fois Nelson Mandela en termes d'opposition civilisée, démocratique et pacifique. Adoudou Nelson Mandela. Afrique du Sud, fait-elle tel, tel, tel, tel. What, what, what, what, En 88, eh, il avait la, jeunesse derrière lui. Je faisais partie des élèves qui se battaient autour de à, à, côté de Beaucoup dans le mouvement des élèves travaillistes libéraux, beaucoup UJT, beaucoup UJTL. Je que responsable adulte. Il ma fait ay y yu pour mettre le pays le Sénégal à feu pour son pouvoir toujours il a refusé On diriger après l'université. l'année invalide ñun là, c'est Iwad qui a réglé le problème tu peux demander Modou Fada je faisais partie des 15 leaders de la CED coordination des étudiants de Dakar la lutte contre les 23 mesures de l'enseignement supérieur imposées par la Banque mondiale à l'État du Sénégal on s'est battu pour que quelqu'un nous applique. appliquer ci la indi année invalide mais Wad nous a appelé chez lui pour nous dire parce que y a des étudiants libéraux ils pensent que c'est moi qui commande la grève ngir Yalla, arrêtez cette grève ngir Yalla, arrêtez ñu nous ko mais Wad lii ñun dañoo bokk ak yow politique mais mission bi ñor étudiants yi la ñuy xeexal xeexaluñ la mais réew mi xamuñu ko dañu yaakaar ne naa ñoom ñoo ngi sama ñu non ñun bu ñuy lever nous sommes investis d'une souveraineté des étudiants étudiants ils ñoo ñuy wax ñu ñun duñu ko ñuy corrompre yow mënoo ñu corrompre Abdou Diouf mënoo ñu corrompre boobu nag la Wade xam ne defar na ay xale il était très fier de notre réponse ñu dem assumer on a rendu compte et avec le pourrissement ñu dem ba lever le mot d'ordre ba sauver l'année demuñu année année blanche ñu am année invalide pour wax la Wade lu war a yàq réew mu fekkee ko da koy defar même bu ciy ñàkk moom ay élection day gagné mu xam pour pousser président bi daw mu jël réew

xam nga tey taalibe murit bu gëm bu wax naan gannaaw ba ma jiitalee sëriñ Sidi Muxtaar wala sëñ sëñ Muntaxa xalif général des murit di ci teg sama sama wasifa wasila gannaaw gannaaw yàlla yooyu noonu cest à président Sénégal daa war a gannaaw ba ma ñaanalee Abdoulaye Wade gannaaw ba ma ko ñaanalee mu gudd fan nga am léegi nag nekk yow nga nekk président parce que jiita nga sa sëriñ tant que am comporté wuñu noonu comme Abdoulaye Wade toujours day mel ni lu ñuy julli ba pare dese sobe maanaam dañoo julli ci sobe yàlla dala koy lëmasal delloo la ko boobu baaxul wadd daa war di yëg fa mu toog ñu naan ko wadd xoolal yi yaa tax ñu def ko man waaw wadd lii de teraanga la réew mii la ko li député yi ñoo ko def nii wala maire yee def lii wala sa njabootu politique ñoo def lii wala parti sàngam ñoo ñëw defal la lii ngir li nga def ci réew mi gis nga bëgg yooyu wadd di bëgg mooy mooy indi jàmm ci Sénégal c'est ça la solution maa koy wax noonu ñu jàpp ne Diarra dafa mëna wax a neex laa miñ moo tax muy wax mais waxuma ma li ci sama biir mooy wax ñu dégg wax xamna ne du man may wax yoruma big ak feuy xaw ma question yi may laaj ya may laaj may génnee sama xol à cœur ouvert donc dafa am lu xamna xam ne dafa am lu may wax lo te xamna naa ne solution pour jàmmi Sénégal cette paisibilité là jubóoleeg Macky Sall comme sëñ bi def te amna lu dess ci biir moy sincérité bi ñi def pour sargal wat pour tepp bànnee xam waat bu bégee rek Sénégal avancer ma ngi leen di gërëm di leen sant